kontante contentement parce que ay ndaw yoo xam ne ñi ñoo dëkk Diaourikouta am seen association génnoon dem Espagne dem fa waxtaan ak benn ONG boo xam ne mu nga Tarragona ñu ñëw ak mairie bu Touba Ngul nga xam ne ci sama circonscription administrative ci la bokk ñu fas yéene tàggat ay ndaw pour bañ ñu dem euh, def Barça wala Barsaq comme liñ koy waxee kooku dama ci kontaan waaw dama ci am fierté pour présider aujourd'hui la clôture de la formation donc ñun état lii lañ sawar mooy suñ politique di ko commencer par le chef de l'état lii muy politique am yëpp mooy que jeunes yi am seen liggéey te lii xeetu liggéey la c'est des emplois voilà ñu nga xam ne dina permettre jeunes yi ñu mën a toog ci seen terroir développer ko parce que loolu mooy li nga xam ne moom la président la république bëgg fii ci réew ci réew mi jeune bu nekk nga am liggéey te ba mu ñu yéegee ci nguur gi ba léegi ñu jox ko réew mi ci loolu lay dox donc su ma gisee ay xale yu am Pastef dem jéggaani Espagne indi ko fii ci sama circonscription administrative duma def lu dul féliciter leen te dinaa leen jàppale ba nga xam ne autorités yi nga xam ne ñu ngi ci kaw dinañ leen gestu ba nga xam ne lépp lu ñu bëgg ci Touba pour le développement de la circonscription administrative de Touba Mboul ñu am ko incha allah rek. Ah, merci beaucoup donc euh, Mansour la di maire Touba Mboul euh, tey nekkoon fii doon présider euh, séance su remise de diplôme diplôme remise de bi nag mi ngi jóge ci benn formation bu ñu doon defal jeunes yi ci wàllu agriculture formation bi benn projet la bu jëm ci wàllu mbay. boo xam ne euh, suñu ay partenaire espagnol ñoom ñoo ñu ko indil euh, mu jaare nag ci loxo euh, Jawre Kuta Jawre Kuta nag di benn village bu nekk ci suñu commune commune Touba Mboul ay ndaw nekk fa ñu am ci benn association di décrocher ay partenaires di ko fi indi ñu yàgg œuvre ci loolu partenaires yi nag yàgg nañ fi yëngatu ci wàllu éducation ci wàllu santé ba tey ñu ñëw nag di yëngatu ci wàllu mbay pour jàppale jeunes yi pour vraiment jeunes yi di mën a toog ci seenu dëkk Euh, di bañ a dem ci gaal yee comme noonu ñu koy déggee mu nekk lu am solo loo xam ne premièrement dinañu jàppale ñun commune ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a dem di wute ay partenaires dina jàppale tamit jeunesse bi pour ñu am ci lu ñuy jàpp mais dina jàppale population bi yëpp parce que tey mbay moomu ñu fi def bu bu aboutiré buñ si amee li ñu soxla population bi yëpp ñoo ci jaruñu euh, donc vraiment ñu ngi euh, jaajëfal. association Ndiawri Couture boobu xam ne ñoo décroché partenaires yi di sant bu baax tamit partenaires yi ak maire yi bu Tarragona bi nga xam ne euh, ñoom dañ si dugal seen loxo bu baax a baax a voilà mairie bu Touba Mboul euh, lépp loo xam ne ñoom soxla nañ ko parce que partenaires yi bu ñuy ñëw fale daanaka buñ ñu fii dinañ soxla hébergement moyen logistique et tout ça loolu danañ leen si jàppale suñu kéemtulaay kattan euh, li ci des. comme ñu ñëw fële di jóge fu sori pour dimbali ñu lépp li nga xam ne euh, fii la baaxoo ci commune bi lu jëm ci wàllu suuf euh, lu jëm ci wàllu teen yi nga xam ne fi la ñu def pompe yi et tout ça ñun danañ ci def suñu kéemtu lay kattan fexe ba projet bi réussir parce que loolu moom man jàpp naa ne c'est le minimum. formation bi formé nañ ma ci affaire agriculture yi wàllu mbay mi def nañ formation bi 3 mois 15 jours. biñ ko defee dem nañ xool affaire suuf si ni mu demee pour que mbay maraîchage bi yooyu def nañ sur le terrain xool terrain bi dem ba si teen bi tamit xool ba xam pour que suñu demoon bay bay nan la ñu kiyee ndox mi ak yooyu mais biñ demee finalement foofu ñu dem réussir na mën na def ci mbay maraîchage bi suñ demoon tey ba lii bi ñëw moom yaakaar naa ne dinañ ci am kii moom dinañ dem ba dinañ mën a dimbali parce que loolu moom daa ni moo ñàkkoon suñu dëkk bi affaire maraîchage bi loo gis na rek dañuy génn dem jënd ko ñëw kon tey suñu demoon ba di ko bay moom au moins moom dina wàññi yenn prix yi comme ni ñu ko daan demee di ko wuti di ko indi la am moo disposition bu doon man la sama mani bopp ñu toog jéem a góorgóorlu jàpp fii parce que affaire formation bi lii la lutter contre la pauvreté wàllum ndaw ñi la danañu dimbale ñun ndaw ñi li ngay dem di ko wuti ji toog sa dëkk yaakaar naa soo ko dee lii moom au moins mooy gën. ci agriculture ak élevage euh, ci euh, diiru trois mois ci projet bi moom la ñu formé quoi waaw ak euh, maanaam agriculture bi nag maanaam mbayu maraîchage ci la ñu formé élevage beet ay races yoo xamante ni yu ñuy demande ji lay doon moom ci la ñu formé aussi. waaw waaw parce que formation waxuma la mais xam-xam bi rek. d'ailleurs jar na ko beneen bi ci des it même bu dul woon projet bu la bàyyi woon tey sax mën nga doxal sa bopp ci compétence bi la projet bi eh, eh, formé ci mbay mi ak ci càmm gi ndax mbay mi daan nañ def façon mbay boo xamante ni bu xamuñu ko te wax nañu maanaam ni ñu gën a mën a def ba mën a améliorer suñu mbay ci espace bi ngay bay ak ci maanaam ni nga koy fertiliser ba mbay mi gën a baax ba ba nga gën a mën a am tamit rendement. comme maanaam mbayu mbayum noor dawuñu ko def loolu ci bes la. espace yi xam daan nañ ko bay bu jëkkit ak léegi espace yi ñu war a béy am na ci lu bees ndax bu jëkk dañoo doon espace rek la ñuy béyee or mën nga bay tuuti am lu bëri loolu aussi jàng nañ ko ci waaw. non jeunes yooyu moom vraiment xëy na sax nag ñàkk lu ñu jàpp la mais nag su fekkante ni eh, gën nañu góor góorlu war nañoo mën a am lu leen téye ci seenum réew ndax am na ci kaw bu ñu nangoo am na. tey jël gaal génn vraiment ay risque la ndax kenn xamul suba lu yàlla lay dogal mais nit ki aussi dafay gëm yàlla ci li ko yàlla jàppalee ko su néew mu jàpp ci ba keroog suñu borom di gën a yokk sa wërsëgam ci neneen ndax wërsëg kenn du ko xëcc wala nga di nga di ko euh, fongaat ñi il faut nga xaar ba yàlla suñu borom jagleel la ko moo gën ndax jël gaal moom wax dëgg yàlla doonul méthode bu baax moom vraiment non suuf moom amuñu problème ba ndax projet bi fi ne bi mu dikkee ci wàllum agriculture même espace bi ngay bi nga xamante ni moom la la projet bi bëgg dëkk bu ci nekk day am délibération am lépp ci dëkk yi ndëm yëpp daf koy am délibération bi tamit projet bi moo tax mu am ko dëkk boo xamante ni demoon nañ tey ba 10 ans wala vingt ans projet bi du xóot délibération boobu day delluwaat ci borom dëkk bi mais problème mu suuf moom amuñu ko ci en même temps ak élevage bépp noonu la espace bi ñuy soxlaat noonu lay demee moom amuñu ci benn problème bi foofu moom waaw man la Demba Kouta représentant ONG coopération comme Activa Kamde Tarawona am ah, bi ma ñëwee ñu ne ma léegi dañuy def remise de diplôme euh, tey bi ñu defee projet bi commencé projet bi ba léegi jotuma woon fekkee yenn activité ci fii ga ne avant commencement bi fekkee woon naa ko mais ak nii mu demee remise de diplôme def na ma leneen loo xamante ne wuute na ak euh, li ma xalaatoon euh, wax dëgg yàlla def na lu ma kowe sama njort association bi objective bi moo doon woon que ay jeunes yu dajaloo euh, pour débattre pour débattre ak génne ay idées pour xool ndax feek cinq ans nan la ñuy def ba suqali ci biir loolu la ñuy ne léegi buñ def ay réunion chaque village les six villages ñu yi nga xamante ne ñu ngi ci commune bi ñoo jiitu mais ñu bootaale yeneen village yi nga xamante ne ñoo ci des léegi nag ñuy def ay réunion di def ay débattre di débatre ci seen biir ak di génne ay nan xalaat yoo xamante ne nan la ñuy suqali ko fi ñu toll nan la ñuy def ba yëgal ko feek cinq ans ba mu gën a am doole boo ko gisee sax da nga naan projet bi sax euh, euh, dafa ñëw à temps ndax fi mu toll nii immigration clandestine yàgg naa am mais dafa gën a dafa gën a euh, bëri léegi ba dem na ba nga xamante ne à chaque fois da ngay fay sa télé pour da ngay dem ba toll ci nga fay sa télé ndax am na image yoo xamante ne mënoo ko xool léegi nag euh, loolu euh, bi projet bi dikkee day tax ka ne jeunes yi mën a am loo xamante ne au moins dinañ mën a toog pour man cee toggande seen réew. ah c'est que euh, nit ki bala nga koy dimbale nit ki ci boppam pour mu avancer il faut mu xam mooy kan ndax nit ki da nga naan ah man de Demba laa tudd lii laa bëgg ak fii laa bëgg àgg boo xamee loolu rek pour dimbale la pour nga jàll day daal di yomb léegi nag ci loolu la ñu ne léegi ñoom ci seen bopp. ñooy xalaatal seen bopp fi ñu toll ci actuellement ci mbay nan la ñuy fexee ba yokk ko feeg juróomi tënk ko ci juróomi at diggante pour ñu gën a yokk li nga xamante ne moom lañ doon produire ba jeunes yi mën a téye jeunes yi ci àll bi. jeunes yi nga xamante ne def nañ formation bi man li ma leen di wax mooy que ne ndax euh, fii suivi booy xool euh, moo ëpp important. études ndax nit ki fi nga xamante ne def nga sa euh, euh, sa njàng ba fi ngay terminer li ci des mooy li nga jàng nga utiliser ko li nga jàng nga wane ko du doon rek danga koy garde itam doo ci xaar kenn yow yaay commencé ba nit fekk la ca walla ba nga am ca la nga bëgg ñoom buñ comme projet bi li mu dikkee mooy que ne ñun ñu dox ndànk-ndànk ci suñu moyen nu bopp li plan d'action la léegi buñ defee suñu plan d'action xam li nga xamante ne ñun kat lii la ñu bëgg ci la ñu commencé ñun ci suñ biir ndànk-ndànk ba ba fa nga xamante ne moom lañ bëgg a àgg ndax ci biir projet bi am na am na lu des muy trois mois yoo xamante ne fi mu toll nii ñu ngi ci toll pour créer ay coopératives indiwaat delloosiwaat coopérative dëkk bu ne boo amee sa euh, petite coopérative nit ñoo xamante ne ñoo booloo ci loolu tuuti tuuti dinañ dem sa kanam.